non Modou Modou man du sama mbër <laughs> du sama mbër de man Balla Gaye 2 mooy sama mbër. Ah, Balla gay 2 mooy sama mbër. kon xanaa li doon daan Balla moom Modou génnoo ci. non boobu commencé woo nekk si ñaan sax boobu duggumoo sax ci mii ñaan mais moment bii nii nii nii nii Balla Gaye Sa du Double Moteur ku leen laal de man ngay njëkk a laal de hmm? waaw waaw ngay wax ci làmb jàmbur muy am. kon sa bis loo ci war a def moo tax Giro Seras ba mu ko indee laalu Abu Ndiaye mu daanu. Giro yaa ko andi xool Giro fan lay jaar Abu ba daanu. waaw mooy bu wér liggéey ci làmb boo ko xamee rek jeex na moom avant muy bëre xam na day dóor Abu Ndiaye mu daanu te du rekay wër noonu moom xam na avant muy bëre tamit xam na ni làmb yi daa am coow. day am coow ba loxo bi dina dagg kon loolu la ñu la koy wax avant làmb nga ñëw gis loolu yëpp ma yow sa yàllaay may te Balla Gaye day ñëwaat te Balla day ñëwaat ci làmb Balla day ñëwaat ci kàttanu yàlla day bokkaat ci làmb day bokkaat ci làmb mën nañu xalaat mu téyewaat couronne mën na nekk hmm. mën na nekk lépp làmb la rek mën na nekk Balla Modou Lo mën naa nekk. waaw ça dépend na ci ñoom ñaar buñ ko bëggee rek man pare naa côté boobu du ma ci mën a xuus daal. Balla Gaye 2 ragal fii day xañ a wërsëg booba Balla Gaye 2 mii laay jàppale mu ñëw daan ko bu neexee yàlla.